mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point net moo leen di jox ay xibaar ci tàng tàng bi Jotali point dali na jàmm ñoo àndi xëy yér yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di Vox Populi ak Les Échos ñu xëy di ñu xibaar naan ñu Habib ak Guy Marius Sagna démb bi ñu xëyee sol nañu seenu dal dem ca kaso bu Cap Manuel seete Ousmane Sonko Habib Sy ci biir journal bii di Vox Populi daan nay wax ne Ousmane Sonko na ma ko fekkee xel dal na ci ndax Ousmane Sonko ma ngi ci forme ma ngi def sport Ousmane Sonko ma ngi bind ma ngi liir ma ngi jàng alxuraan Ousmane Sonko li ne ñooy ay farandoom ñi koy jàppale nee na ñu concentré wu ci élection présidentielle 2024 ndax nee na changement bi nga xam ne yàgg nañu 60 ba léegi léegi tey changement boobee daal di am ndax élection 2024 li ci des bëreetu na ci gars yi concentré woo Habib Sy ci biir journal bi daal dinay wax ne Ousmane Sonko leneen li mu ma wax nee na ma wax ñi nga xam ne ñoo koy jàppale maanaam ñu moytu lépp loo xam ne jëm na ci wàllum tontu ay provocation yéen kay gii di Vox Populi gii Mari Sagna nee na anam bi nga xam ne moom la fekkee Ousmane Sonko musu ko ko fekkee maanaam Ousmane Sonko ma ngi ci wér-gu-yaramam ma ngi ci jàmmama dakkal na li nga xam ne moo jëm ci wàllum grève de la faim pour l'instant waaye nag moom Ousmane la mu xam ne mooy grève de la faim ko situation bi présenté waatee maanaam da ko say dàbbale waatay yéen kaay gi da la témoin xëy duñu xibaar naan ñu doomu Abdoulaye Wade bi di Karim Meïssa Wade ma nga ca duwaa waaye nag jamono ji ma waaj bu baax a baax maanaam ab retouram Karim Wade ñëw ci réewum Sénégal Karim Wade ma ngi koy waaj jël na ay moyens jox ñi nga xam ne ñooy ay farandooma xool nan lay def ba gagné élection yi journal bi da la témoin nee na ci loolu ci la Karim mbërëma te nag li amba des mooy ñoom ñaare kenn ku nekk dina ci dugal loxoom ba mu mat sëkk ndax Ousmane Sonko xam ne ne victoire u Ba mooy victoire am defetu Amadou loole moo tax journal bi di l'info nee na élection présidentielle 2024 muy Ousmane Sonko ni Macky Sall ñoom ñaar dinañu si engagé bu baax a baax ndax Macky Sall ma ngi jël Amadou Ba di ko yóbbu ci kër kilifa diine yi def ak moom tournée économique Ousmane Sonko tamit ma ngi recevoir ci kaso quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu kero bi Ousmane Sonko waxee nañu pare ne Bassirou Diomaye Faye boobee ba léegi mbir maa ngi mel tulleeg màlle ñi nga xam ne nag ñooy farandi lu jëm ci wàllum parrainage bi mille ci ay parrain yéen a kaay gii di la xibaar naan ñu Macky Sall yebal na Amadou Ba ngir nag mu dem charme ñi nga xam ne ñooy xale yi ndax am na benn conseil présidentiel boo xam ne ci ndaw ñi la koy def boo xam ne Amadou Ba moo journal bi nag nee na xale yi nga xam ne amuñu liggéey chômage bu metti bi am ci dëkk bi loole nag ab pataas bu tàng la boo xam ne moo nekk ci loxol kilifa yi yéen kaay am na lenn loo xam ne Macky Sall mu ngi koy lijjanti te ba léegi lijjanteegul mooy nag lu jëm ci wàllum di Libération xëy ci passation de service bi nga xam ne doon nañu ko amala diggante Abdourahmane Dieye mi jiite woon douane ak Mbaye Ndiaye mi nga xam ne moom la ko dénk Malick Mbaye mi nga xam ne mooy coordonnateur direction générale de la douane daan nay wax ne lu jëm ci seen recette ci

njàng mu digg doomu mi démb ma ngi woon ci assemblée nationale waaye nag nee nañu ko Sénégal dafa manqué ay jàngalekat ndax lu toll si juróom-ñetti junni Sénégal manqué na ko ci jàngalekat waaye Cheikh Omar Anne démb bi mu wax dafa mel ni yëgulu ko yaramam yéen a kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu député yi démb wax nañu jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci njàng mi ak njàngale mi yéen a kaay gi di Verde News xëy nag yàq musiba ak mbelengaan Pierre Atepa Goudiaby nee na Pierre Atepa bi def na ko Casamance jamono ji li ko war mooy mu noppee ndax du modèle du référence trafic d'influence ci lay yëngoo Macky Sall nag moo yay na ko escroc nga ndax ci lay dundoo yéen kaay gi defee di news ne na Pierre Atepa Goudiaby tudd nañu ko ci lu jëm ci wàllum blanchiment d'argent wàllum compte offshore wàllum paradis fiscaux wàllum chantage ci lay yëngoo ñi nga xam ne nag ñooy club des investisseurs ñoom dinañu génn ak communiqué ñaawlu bu baax a yi nga xam ne Atepa ma ngi koy xëy dañu xibaar naan ñu Mame Boye Diao yóbbu na Adama Fall fa mbaxana doone benn ci lu jëm ci clé USB bi nga xam ne moom la Adama Fall waxoon ne ay parrain Mame Boye moo ci nekk yéen i kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu syndicat bi ëmb ñi liggéeyee ci lu jëm ci wàllum yoona syndicat bi de justice ñoom nag ñaari fan yi jii ci alxames ji ak suba ci àjjuma ji yéen i gi ne perturbation dina am ci tribunaux yi yéen i kaay gi ne rappeur bii di nit dofa di direct news xëy duñu xibaar naan ñu Omar Sall mi nga xam ne Tidiane yi ñoo ko porté woon plainte ba ñu jël ko yóbbu ko ci kaso bi Tidiane yi retiré nañ plainte bi yéene kaay gi de l'Observateur na ko demeewul noonu benn plainte retiré ko te Omar Sall moomee am na yeneen fukki plainte yoo xam ne maanaam teg nañu ko ci taabalu àttekat bi yéene kaay gi di sunu làmb xëy nag ci xaalis bi nga xam ne waa CNG ñoo ngi koy dagg mbër yi nee na muutuloo Ama Baldé Lac de ñu xoolee li ñu leen dagg toll na ci 10 mën ngeen a ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. Jotali point moo leen di jox ay xibaar ci tàng tàng bi Jotali